vraiment du jël parce que li la ci mën a fekk moom xam nañu conséquence bi mhm. nga xamante moom mooy de tout le temps tribunal ni muy doxee ak ni ñuy appliqué ni ñu lool mhm. ni lu sexe la wala lu gàtt wala lu jotul de tout temps boo ñëwaan ngay la bàyyi nga nga nga dugg mhm. boobu benn aspect la ci bi topp mooy euh, image ak communication ak bi nga xamante ne Adji Sarr wan na ko dafa am loo xamante ni moom lay dénoté ndax de tout le temps victime de viol yi dafa am posture bu ñu leen daan gisee bu ñu daan jëw tribunal dañuy jéema a passé mm-hmm. dañuy jéem a vraiment woon affiché mine boo xamante boo boo leen gisee sax da leen di yërëm xam ne ñii mm-hmm. traumatisé parce que viol viol dëggantaan li tax ñu naan viol mm-hmm. képp koo xamante ne victime nga ci wala subir nga ci dafa am ay séquelles dafa am benn traumatisme dafa am benn benn problème psychologique boo xamante ne moom lay bàyyi si yow maanaam dafa am benn jeexit boo xam ne da koy bàyyi si yow da wala foo waxee ñu xam ne yow mi kat lii dañ ko gis yow mm-hmm. mais jour boobu noonu boo jàngatee mi nga xam moom mooy démarche ak communication Adji Sarr da ngay gis ne yooyu yëpp gisuñ ko ci moom mm-hmm. c'est-à-dire mboolem li nga xamante noonu la ñuy observer victime de viol mm-hmm. euh, boo ko xoolee daanaka loolu doo ko gis ci moom donc loolu loolu problème la rawatee na nag li nga xamante ni moom mooy wàllum wàllum communication bi communication par rapport ak après confrontation bi ak communication également bi nga xamante ne def na ko xam moom mooy confrontation parce que li tax ma ne xam nga am na ay uute yoo xam ne am na ci la ma waxoon gendarmerie ak la ma waxoon devant le juge mm-hmm. ci enquête préliminaire na am na erreur yu bëri yu mu defoon ci communication bi je pensais que en diggante bi dinañ ko en gën a encadré waat conseiller ko pour que mu mun a xoolaat communication erreur yi mu defoon ci enquête bi naka la koy jubbante mais da gis ne erreur yooyu dafa persister mm-hmm. ndaxte mën naa man recensé naa dix mbir yoo xam ni fukki mbir yoo xamante ni la mu ca wax dafa wane ni kat dafa dëf maanaam non seulement gars yi gisuñu confirmation bi. Mhm. mais benn boo ci exploité rek da ngay gis ne kat lii nii tuuma yi mu teg dëgërul amul fu mu taxaw mën naa ci répertoire naa si dix yoo xamante ni benn bu ci nekk mun naa ci ñëw. Mhm. parce que boo xoolee ci enquête préliminaire bi. Mhm. Euh, au minimum am na ci dix dix maanaam xaw ma nan laa xaw ma xaw ma nan laa ko dama bëgg fetal kàddu gi bëgguma wax fen dama bëgg gën a kàddu kàddu yu waroo fukki kàddu yu waroo puisque nañ ko gën a encadré mm. bi waroon ci ay avocat bu ko laajee mm. xam nañ ni bindul plainte bi parce que laaj yi ñu ko laaj xam nañ ni kii bindul plainte boobu noonu mën nga jël intellectuel bu gën a mag boo doonul juriste mënoo bind plainte boobu parce que plainte bi day wax délit yi muy toppee ki ki mu joteel mm. yan article ci code pénal moo ko prévoir ak daan bi article code pénal prévoir ci ci boobu noonu loolu mm. boo nekkul juriste mënoo ko xam léegi nag erreur bi mu def foofu mooy bañ ko ne dañ ndax yaa bind plainte dafa roon ni déedéet parce que Sénégal yoon terewul nga am niita problème dem ñu bind la plainte mm-hmm. d'ailleurs commissariat wala brigade boo dem ci buntu ba am na ko fi bind katu plainte loolu xam nga bu ko doon tere policier yi duñ bàyyi foofu noonu kooku kooku toog mm-hmm. parce que policier ñoom seen bind plainte bokk ci mm-hmm. ñoom duñu bindal kenn plainte mm-hmm. da ngeen bind sa plainte ñëw mais le fait mu wax loolu ñu dem ci biir ñëpp xam ne bind ko ah juge bi da ciy tiré les conséquences xam ne fii wax na loo xamante ne du dëgg léegi nag puisque wax na fii lu dul dëgg kon deuxièmement lu jëm ci wàllum grossesse bi xam nga maa ngi dégg ñenn ñi mhm. sax naan mosu koo wax mhm. mais wax na ko médecin ba mu demoon wax na ko ci enquête préliminaire ba wax na ko ci conférence de presse bi nga xamante defoon na ko avant audition bi mhm. publiquement mu tax ñëpp di ko dégg mais par waxoon na ko également Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye muy Ibrahima Coulibaly parce que ko dëggal mais gis nañ ni grossesse bi amul muy deuxième lu jëm ci wàllu message parce que jour boobu noonu dafa ne enquêteurs yi dañ ko envoyé dafa jot message yu Ousmane Sonko bu koy wane ne kat maa ngi ñëw. Hmm. bañ ko ne ana message bi mu ne non non non finalement message bi du man la ko envoyé directement mais Ousmane Sonko Ndeye Khady non seulement non seulement. Hmm. man envoyé wu ma ko message capture d'écran laa ko envoyé mais loolu sax ci suñu benn client naar la jógee. la jógee wallaay. juge bi compté baaraamam muy troisième. maçon troisième fen ci dossier bi wallaay quatrième mbir. Mm-hmm. lieu destination bi jour boobu noonu ba muy tàggoo pour génn Sweet Beauté fa mu waxoon ni fa la jëm ak fa mu dem dëggantaan bokkul. Mm. cinquième bi dafa ne woon benn euh, dafa am jakartaamaan boo xamante ne moo ko waroon jël si yaayam moo ko moo ko yónnee jakartaamaan bu jël si ko comme dafa ëmb ak yooyu noonu mais mm. gis nañu ne au lieu de jakartaamaan 4 x bu ñuul moo ko jël si mm-hmm. cinquième mbir bi mooy lu jëm ci wàllum wala sixième bi sax mooy lu jëm ci wàllum. Mhm. lu ma lu ci wàllum euh, maanaam euh, ndawam parce que dafa woon wax ni c'était première fois ñu yegg si kawam et cetera certificat médical bi ñëw wax leneen. Mhm. septième bi mooy motif de licenciement parce que moom mosoon nañ ko dàq Sweet Beauté. Mhm. ba ñu ko laajee lan moo waraloon ñu dàq ko dafa ne non ci coobare boppam la mais bi ñu dé dégloon Ndeye Khady Ndiaye dafa ne loolu amul pour mauvais comportement euh, mooy li nga xamante ne mooy. Euh, dañu seetlu woon ne dafa am xale bu góor bu doon doxantu ci koñ bi jaabante journée bi yëpp mhm. moom ba ñu ko laajee Adji Sarr kookan la dafa ne woon xaritam la mais dëggantaan après enquête bi dafa wane ne kooku du woon benn xaritam Sidi Ahmed Mbaye la woon beneen bi si topp nag mooy lu jëm ci wàllum vidéo bi nga xamante euh, ñoom ñëpp ñi koy sotu ñëpp nee woon nañ am na vidéo bi mhm. keroog ba ñu ñëwee donc fukki mbir yi mhm. coro nga porté plainte ne dañ juge bi xelam dina tey de dina ne kii dix mbir yi mu wax yëpp dara du ci dëgg kon est viol bi muy wax tax dëgg la mm, doy na waar te lépp lié ak viol voilà justement donc mm-hmm. lii mooy li nga xamante mm-hmm. avocat am war nañ koo rectifier balaa ñoo dem procès sinon bis bu ñu defee lu ñu tuddee disqualification maanaam soppi tuuma yi mm. écarter viol bi indi beneen délit teg fa bu mu berte kenn te loolu c'est c'est c'est une forte probabilité parce que li a Euh, même bu ñu gisoon luy setal Ousmane Sonko. Hmm. duñ ko setal. wallaay gars bu ñu rêvé de non-lieu bi ñu tudd nii bu ñu rêvé de c' est vrai que juge bu yor dossier ñaari possibilité yooyu la am jox la hmm. bu ñu yaakaar ne noonu lay yombee de ñu jékki-jékki doyen joxe non-lieu. wala ñu dem procès ñu setal ko fa acquitté. bu ñu yaakaar ne yow bu gars yi rêvé de. na ñu jug gën a laxasaayu combat bu ñu war a mëne sur le plan politique ñu mëne ko sur le plan côté justice ñu mëne ko. cest à que leer na xam nga xam nga le fait que opinion bi yëpp am perception mu leer opinion bi yëpp que viol amu fi loolu doyul de. Hmm. parce que gis nañu fi jurisprudence Karim Wade ak Khalifa Sall. Karim Wade avant ñu koy topp dañu lancé woon une enquête internationale. Hmm. enquête boobu wane ne Karim Wade bien yi ñu koy toppee ak yii yëpp amul. et que enrichissement bi ñu koy jiñ amul. mais rapport bi dañ ko jël dëxëñ ko nële. kaaw Khalifa Sall également rapport IGE bi ñuy wax daf ko félicité par rapport à sa hmm. ñu jël ko teg ko ko. Ousmane Sonko également gis nga rapport confidentiel bi ñuy wax ci gendarmerie. Mhm. ñu jël ko teg ko nële. comprendre nga. wallaay c'est-à-dire que. même bu ñu gisoon lu koy setal duñ ko setal mën naa bañ a mucc ndax ay wujjëm la taseel justement loolu la ñu ko bëgg a faagaagal politiquement justement donc bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu rêvé bu ñu rêvé mhm. waaw bu ñu rêvé nañu gën a laxasaayo xam ni mhm. du yombee noonu ñu jékki-jékki rek nii rek dañ koy setal surtout ça donc bu fekkee euh, procès mën na cee am ñu ñu ñu ci bari du njort comme ni nga ko njortee ne procès la ñu jëm mais euh, damay dégg ñuy wax ne su fekkee na nañoo dem procès moom Ousmane Sonko warul jóge këram dem procès. Mhm. dans les normes prison la war a jógee dem procès est-ce que loolu da nga koy dëggal. waaw loolu laaj bu am solo la. Euh, bu fekkente ni doyen des juges dafa décidé ni di joxe noole day day yóbbu mbir mi ñu àtte ko. Hmm. faw Ousmane Sonko dem prison. waaw mën na ñàkk. yoon moo ko tëggee noonu. Hmm. doyen des juges déglu leen bu baax li may wax ñaari possibilité la am seetal ko may ko noole wala yóbbu ñu àtte ko. bu décide bés bu bu décidé ni dañuy war a yóbbu Ousmane Sonko loolu mooy égal Ousmane Sonko dafa war a dem prison. Mm-hmm. ndax tribunal bi ñu war a attee wàllum viol foofu pour ñu atte la fa faw nga dugg kaso. mënoo mm-hmm. génne sa kër ñëw foofu ñu. mënul nekk wala. donc su ngeen déggee ñu ne ah doyen des juges na renvoyer mbir mi jugement. Mm. loolu mooy doyen des juges na ne Ousmane Sonko dafa war a dem prison. ndax chambre criminelle pour nga comparaître fa da ngay euh, mm-hmm. bu ñu jàppee ne jàppale ni kon justice décidé ni Ousmane Sonko dafa war a dem prison. Mhm. noonu lii rek ko koy tax teree dem prison bu ñu décidé procédé am day am parce que chambre criminelle moo ko war a atte. chambre criminelle pour ñu ko xam moom mooy ancien cour d' assise. Mhm. cour d' soppi tur bi. Mhm. donc foofu doo fa comparaître libre balaa nga fay comparaître da ngay prisonnier faw nga dem prison ba pare. donc loolu mooy li nga xamante moom moo ci ak xale bi ni mu ko laajee ni ko ay ay ay euh, avocat am laajee ni ko sénégalais doon xaaree ci confrontation mu indi ay preuve que ni dañ ko violé indi wuñ ko ñoom ñu ngi toog di xaar procès wax ma la procès public ñu xam ne wala maître El Hadji moom xamul ne ñu dee dem procès il faut Ousmane Sonko dem kaso. waaw xam nga xam nga xam nga objectif bi mooy. Mhm. ñaari biir. Mhm. bi si jiitu mooy jaarale Ousmane Sonko fi ñu jaarale xalifa Sall ak Karim Wade. maanaam fexe ba yóbbu la procès condamné la ne la doo bokk ci élection. Mhm. Euh, boobu moom mooy li nga xam ne moom moo ci jur donc nu mu leen même bu dee dañuy soppi tuubam parce que lenn mën a nekk. Hmm. mën nañu dem jugement ñu seetal Ousmane Sonko pour viol c' est bien possible. Hmm. mais seetal ko pour viol condamné ko pour leneen li mais leneen loolu mën na ko gàllankoor. pour du te gars yi ñu ngi exploité sérieusement piste boobu. ñu ngi exploité sérieusement piste boobu noonu. pour xool ñu ko mën a écarté ci ay élections waaw parce que. Euh, xam nañ ne amuñu preuve bu dëgër pour wàllum viol léegi nag mm. ñi nga xool naka la bàyyee viol bi pour xool beneen délit bu ñu fa teg mm. comme ay agression sexuelle wala attentat à la pudeur outrage public aux bonnes mœurs ñi ngi xool daal yeneen tuuma yoo xamante ne bu au cas bu rëccee ci bi mm. du rëcc ci bële loolu ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk di ko di ko xool te tuuma yi nga wax yépp bépp bu ci buñ ci jëloon laal ko ci dam mën na koo teree nekk loolu présidentiable waaw bu bees bu ne dëxëñ ko nëbb ko nag Sénégal yi fàtte ko xamante ne même bu ñu la mën na laa tere bokk élection loolu Sénégalais dañ ko fàtte. Hmm. en deux mille vingt et un juillet deux mille vingt et un. Hmm. voté nañ fi ab loi boo xam ne képp ku ñu condamné un mois wala même sursis nga xam xamante xam nga sursis doo tëdd kaso da ngay dem ñibbi. waaw même bu ñu la condamné sursis. Hmm. ci yenn délit doo bokk ci élection. te juillet deux mille vingt et un lañ ko voté. ñu ngi ko nañ ko fi mu tëdd nelaw. mooy révision bi ñu apporté ci ci ci ci ci ci ay yenn yenn loi yoo xam ne amoon na fi donc loolu sénégalais fàtte. c'est vrai maanaam. fi ñu dañoo nekk di gas kàmb yoo xamante ni fu Sonko rëccee fii rek bii du ci rëcc. Mm-hmm. moo tax man du yombee noonu ñu tëb nii rek setal ko. Mm-hmm. ak liñ ci def yëpp coow liñ ci créé yëpp ak ñi ci dee yëpp ak alal biñ ci dugal yëpp. Mm-hmm. pour ñu tëb nii rek setal ko du yombee noonu de xeex dëggantaan. moo leen di tax am loolu. xeex dëggantaan c'est-à-dire que le fait que conviction bi sénégalais parce que déjà tribunal mhm. sénégalais xam nga àtt nañu dossier ba pare leer na sénégalais yëpp ne mhm. politique da ci lax parce que nañu doxalee Khalifa Sall Karim Wade foofu lañ ko bëgg jaar xam nga loolu mhm. sénégalais parce que gis nañu à chaque fois nguur lu mu bëgg rek région lu mu bëgg rek da koy am souvent justice daf ko ciy fekk si day ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sens boobu noonu moo tax côté boobu noonu euh, a donc su ñëwee ba tey ci dossier bi ñu desandi ci parce que euh, am na ci fa for nañ ci wu bëy te bokk bokk na ci li nga xam ne moom moo ci suñu sujet bi que capitaine Touré. Mhm. dinañu ko euh, dégluwaat ci dossier bi ni kii altine incha allahu mhm. rabbi jii di ñëw. Mhm. mais est-ce que dégluwaat capitaine Touré am na changement bu mu indi aussi waat ci dossier bi. waaw xam nga audition wu capitaine Touré euh, ñaari intérêt la am. Hmm. intérêt bi ci njëkk mooy exploiter piste comploteur yi. par rapport ak enquête conf euh, gendarmerie enquête interne gendarmerie bi nga xamante ne mm. juge bi jox na jox na ko mais également par rapport ak yenn tuuma yi nga xamante ne na ci ginnaaw bi parce que dégg nañ ñu ne dañoo falsifier PV bi mm-hmm. ce sera l'occasion kii defoon enquête bi ñu déglu ko ci xool ndax loolu am na ci waaw wala déet mm-hmm. dégg nañu également ñu ne euh, lu jëm ci wàllum enquête bi ni ñu ko déroulé ak yooyu noonu mm-hmm. donc euh, double intérêt boobu noonu la audition au capitaine audition yi waruñu yem rek ci ki nga xam ne moom mooy capitaine Touré. Hmm. ndax bu weesoo capitaine Touré am na ñeneen ñoo xam ne mën nañ leen a déglu parce que euh, confrontation bi passé Adji Sarr bi ko juge bi waxee dafa ne lan. nañ summee ko comme ni leen seen yaay jure. Hmm. yaramu neen la ñuy summee ko. Hmm. non nuyu sax mu gën naa grave yaramu neen. parce que mën ngaa summee ko yaramu neen da say pàtte intime du fay mais dafa ne suite beauté clients yi bu ñu leen di massé dañuy futteeku comme ni leen seen nday juree xam nga loolu la wax wallaay léegi nañu woo yeneen masseuses yi masseuses yi fa doon liggéey xam nañ leen elles sont formellement identifiées nañ leen convoqué laaj leen mm-hmm. ne serait boobu mm-hmm. est massage boobu noonu daf type de massage boobu am na suite beauté nañu woo nañu woo nañu woo masseuses yi pour ñu témoigner fa moo tax man ma jàpp ne euh, gis nga bi buñ ko mm-hmm. buñ ko mënee de manière sérieuse Hmm. parce que enquête dañu war a ratisser c'est-à-dire que loolu la xaar ci juge. le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ni ngay wutee ay firnde. Mhm. yu dëggal li Adji wax noonu la war a wutee ay firnde yu setal Ousmane Sonko boole firnde yooyu yëpp jàll fondé sa décision soit noolee wala yóbbu ñu àtte mbir mi. Mhm. donc puisque Adji Sarr xale yu jigéen ñi foofu bu ñu euh, euh, suite beauté client yi bu ñuy maase dañuy futtee ko comme naam am na salon yuy defee liggéey noonu mais du mhm. salon yëpp mhm. man gis nga en 2018 dafa ma jaral man def sur le terrain def enquête si si sur les de massage au mhm. Sénégal benn préparation euh, ma am ñaari euh, enquête yoo ko doon def benn bi dama àndoon ak ay policiers bokk ci ramas yi def guddi ànd ak ay policiers def ramas guddi ci mbedd orienté vers les salons de massage xam nañ ni am na salon de massage yuy def loolu. Hmm. mais du yëpp du salon de massage yëpp. moo tax man bokkuma ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ni képp kuy liggéey salon de massage rek. ku yàqu nga man d' ci loolu. Hmm. am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla ñi ngi def lu correct di ko def normal. mais ci wet gi tam am na ñoo xamante ne dañuy def leneen. Hmm. parce que am na ci salon de massage yoo xamante ne man ci enquête bi ma lay wax ne en 2018 daf ma jaraloon ma massage. laajte ñu ne ma trois types de massage ma ne ma am na massage boo xamante ne femme bi lay maase. day solire hmm. defal la massage boobu mooy premier type boobu moom cherul ay dix mille francs ngay fay ak yooyu de massage boo xamante ni ki lay massé deux hmm. boobu nag moom mooy gën a cher mën naa hmm. dem ba vingt mille ak yooyu noonu waaw mais am na ci troisième type de massage boo xamante ne ki lay massé day futteeku taatu neen ñu baal ma ci kàddu bi boobu nag moom mooy gën a cher parce que day dem ba ay trente mille ak yooyu noonu wallaay a léegi nag sama curiosité journaliste man j'ai l'expérience ma fay trente mille jaral ma ma fay. pour pour pour pour tester. waaw mais effectivement effectivement ndaw si dafa futteeku taatu neen mu ne ah kon salon de massage lii am na ñuy pratiquer lii. wallaay j'en ai fait l'expérience kenn nettaliwu man sama bopp maa ko expérimenté. Mm-hmm. tubaab maa fekk ba ma dem dafa mm-hmm. àndoon sama benn xaritu étudiant boo xamante ne ku ma xam-xamee nga maa moom depuis jamono ñu ngi ànd. waaw a ñu teg début bi moo doon bu ñu demee ba 15 minutes rek woo ma sama téléphone sonné. Hmm. comme ça mu mën a interrompre séance bi. waaw waaw c'était juste mu am vérification moom mooy affaire hmm. eh, mu mu xaw a inquiété wu xaw xaw foofu nag gis naa ne après xaw na xaw na soupçonné. soupçonné waaw yaakaar ni sax est-ce kii du. enquêteur la policier wala mais hmm. c'était pour fonder conviction donc pour prouver que am na ñuy doxalee lu mel noonu. mais nag du ñëpp. Mm-hmm. du ñëpp ñoo koy ñoo ñooy doxale noonu parce que ni ma découvrir côté boobu noonu mm-hmm. noonu laa découvrir également que am na salon de massage yoo xam ne du ñu def loolu mm-hmm. te man j'ai discuté waxtaan naa ak ay masseuses yu doon liggéey Sweet Beauté ñu ne ma mm. am na ci koo xam ne sax mardi war na ñëw balance incha allah foofu sax du ci sori foofu laa ci yem bu ñëwee dinañu xam ndax li Adji Sarr wax ni clients yi bu ñu leen doon kii dañuy summeeku comme ni leen seen yaay juree ndax loolu na kooku ñu ngi leen di jox rendez-vous mardi bagage masseuse bu doon liggéey Sweet Beauté dina ñëw def ci témoignage wax lépp nu mu demee côté ko moom dina am solo bu soobee yàlla mardi lañ koy xaar bu soobee yàlla kooku moom moom moom mhm. li ci kanam réew li ba uh-huh. mais suñu ñëwee ba tey jii ci accusation yi ak li ñuy wax ak li nga xam ne nii mën nañ koo retourner waat contre Ousmane Sonko bu dul viol ñu toppee ko leneen mhm. ñu ngi wax léegi ci salon de massage bi ci boppam est kon Ndeye Khady am na lu ko ci mën a fekk moom aussi surtout que bu ñu dégloo waat euh, capitaine Touré waaw xam nga xam nga déjà. Hmm. capitaine Touré. Hmm. foofu tam beneen intérêt la boo xamante ne audition bi ñu ko war a def ci moom intérêt euh, dina ci am mooy par rapport ak tuuma yi ñu def ci Ndeye Khady ki nga xam ne moom mooy Ndeye Khady Ndiaye donc hmm. ce sera l'occasion capitaine Touré wàll googu dina ci leeral lu bëri bëri mm-hmm. et ñu xool aussi xam par rapport ak tuuma yi li jiñ Ndeye Khady Ndiaye dëgg la parce que bu fekkente li ñu koy jiñ dëgg la mm. bu mm. dëggantaan dañ ko condamné pour proxénétisme parce que proxénétisme li ci mm. loi bi wax mooy que kër gi di liggéey loolu loolu xale yu jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi koy liggéey ñoom ñaar ñëpp la yoon war a topp donc fu ñu toppee Ndeye mënta rëcc ak ñeneen ñu bëree bëri mënta rëcc parce que mm-hmm. professeur bi noonu la kay liggéey loolu xale jigéen ñi ak xale jigéen ñi seen bopp ñoom la yondi mais clients yi yondu leen topp ci wàllu googu noonu mm. donc moo tax audition u capitaine Touré c'est capital c'est fondamental bu dee bëgg nañ dëgg gi feeñ mais nag mm-hmm. waruñ ko yemale ci ñoom faaw ñu déglu yeneen masters yi nga xam ne doon nañ fa liggéey pour leeral par ndax tuuma yi ñu wax mm-hmm. li nga xamante ni moom mooy euh, wàll gee nga xamante ne Adji wax na ko également dëgg la te ñi ngi am yaakaar sax ne bu duñu yem ci capitaine Touré bu ñu dégloo capitaine Touré tam mboolem ñeneen ñi nga xamante ne défense sàkku nañu woo leen déglu leen dinañ leen woo pour mën leen a mën leen a mën leen a déglu mhm. donc loolu tam également euh, ñu ngi koy xaar bu baax a baax buñ dee ba tey ñu desandi fa rek ci beneen ci question ñu soog a jàll ci deuxième sujet bi mhm. bokk na ci euh, am na ñu bari ñoo xam ne dañuy solil seen xel di wax ne buñ dee wax euh, waxi viol gisuñu zéro preuve la ñu gis mais buñ dee wax complot bi à chaque fois dañuy gis moom Ousmane Sonko mi tudd complot la. dina indi ci table procureur wala dina wax loo xam ne nii dina tax nit ñi gën a xam ne euh, complot mi ngi gën a jege. Mhm. ci kaw procès bi ak la ci mënta am. bu fekkente ne rek yoon am yoon doxal na dëgg est-ce que mën nañoo dem procès te du ñu saytu tam côté bi nga xam ne moom mooy côté complot bi Ousmane Sonko wax surtout que nag am na ci yu bari bari yoo xam ne ni ñun ñëpp fekk nañ dégg nañu gis nañu. waaw man bu fekkente ne justice dafa décider ni du enquêté ci côté comploteur yi man du ma bett li tax du ma bett mooy hmm. dañoo gis lu mel noonu ci kaw dossier Fatmata Matar Ndiaye hmm. Samba Sow biñ ci topp dafa ne euh, ma nangu naa ne maa rey de mais benn du man kese ñaar lañu ñu wal ah. ñaari nit la man ak keneen te keneen koom ko joxañ am na témoin bu dëkk ci koñ bi benn femme buy jaay foofu ndekki nee moom gis na une deuxième personne avant Samba Sow di génn takk deret am na keneen ku sol lu weex ku njëkk a génn di daw hmm. deuxièmement Samba Sow mu ne leen lii adversaire politique wu wala bokk ñi nga xamante ñoom ñooy yenn responsable politique yu dëkk Pikine ñoo ma fay xaalis neexal ma diggal ma ma def lii depuis 2015 ñi ngi topp di ma fay xaalis di ma neexal ay 300000 francs 500000 francs pour may def ay saafara ay gàllaaj ci oto Fatoumata Matar Ndiaye ñooñu ñoo ma ñoo ma ñoo ma diggal pour ma def loolu mais justice ba muy def enquête bi ci Samba Sow ba pare daw lijjanti lancer mandat d'arrêt wala ordre jox ordre pour que takk der yi wër ko. defuñu mm. ko muy benn. Mm-hmm. ñaareel bi ñaareel bi. Mm-hmm. ñi nga xamante ne Samba Sow tuddoon na leen daf leen cité nommément. billaay daf leen tudd ci ñoom mu tuddoon am na ci koo xam ne c'est un ministre c'était un ministre benn ministre. ci mm-hmm. jamono yooyu. am koo xamante ni député la. am koo xamante ni maire la. mais ñooñu kenn woowu leen kenn dégluwu leen. boobu benn exemple la deuxième exemple mooy do Jombaas affaire Jombaas. waaw affaire Jombaas du pour ñi nga xamante ne xamuñ ko benn dossier la woon boo xamante ne benn xale bu jigéen. Jombaas mhm. benn responsable politique la bu PDS bu doon bu nekkoon fële ci Dagana di politique. Mhm. ñamu bokkal même parti comme Fatoumata Matar Ndiaye ñamu bokkaloon parti ñoo ko fexel. Jombaas mhm. ñamu bokkaloon euh, même parti nekk foofu noonu ñooñu tamit également montel ko coup monté benn xale bu jigéen. waaw pour xale bu jigéen bi tëdd xale bu jigéen bi tëdd ak moom ba pare filmer ay waaye ba pare tasaare ko. ci kaw loolu plainte am ko digal moo ma woo proposé ma lii jox nañ ma lii dig ma lii ak lii ak lii ak moo tax mais ministre boobu kenn mosu ko woo kenn mosu ko déglu. c'est donc moo tax man ma jàpp ne euh, bu ñu deful enquête ci côté comploteur yi man côté boobu dama bett. du la bett d'autant plus que d'autant mm-hmm. plus que. Mm-hmm. Euh, plainte bi am. Adji Sarr moo porté plante pour viol la porté plainte ak menace. Mm-hmm. léegi nag est-ce que waruñ defaat beneen procédure. pour lu jëm ci wàllum comploteurs yi loolu mm. également lu lu jar a bàyyi xel mm-hmm. beneen mbir la boo xam ne beneen yoon beneen combat la boo xamante ne war nañ ko def beneen procédure pour dénoncer li nga bu doonee des juges enquêté wu ci ci comploteurs yi ñu def loolu pour enquête

waaw lu jëm ci wàllum preuve. preuve. Mhm. xam nga ñi ñi ñi ñi